waaleykum salaam wa rahmatullah naam imaam abdallah na ngeen def mbaa yéen si jàmm macha allah wa ala kulli xaal man pour man position bi ñu ci war a am mooy position commission bi rek ndax bu fekkente ne aussi dem nañ ba xaajale ko ak suñu ay nit yi ñu bokkal réew mi ba àndatuñu ak commission nationale bi fi nekk loolu rek déjà lu metti la te loolu mooy li waroon nekk mooy ñu ànd ñoom bañ a xaajale ko ak ñoom ndax julli du mbir boo xam ni kenn ku nekk da nga koy defal sa bopp wàllu woor ak julli dokk ak yu mel noonu jullit ñi ñooy àndandoo di ko def noonu la ko lislaam diglee biñ demee ba mënuñ cee ànd ak ñoom ndax xam yiñ ci dugal ci lañ dem ba am beneen commission boo xam ni am na ñu am ci ñoom yaakaar ñu fa nekk nekk ci ahlu sunna di gëstu weer bi di ko lijjanti di ci jokkoo ak ñi ci war a jokkool saa bu ni feeñ na ñu wax ko nit ñi nit ñi sukkandiku ci loolu pour man foog tamit ñu am discipline ci loolu voilà bu ñu demee ba nga xamante ne commission boobu Euh, wax na ni gisul weer bi ne dafay xëy suba wóor pour man nit ki lim mën ba mën mooy bu amee information mu woo ko bokk ci ñoom wax ko waxtaan ci ak moom ñu xool lan la ñuy wéyal ci information boobu ndax dañ koy jàllale wala duñ ko jàllale. ndax lislaam tamit doxalinam ci bunt bi xam-xam lay jiital daal du rek xam naa lii dama koy wax wala xam naa lii dama koy jëf information bu nekk ak tolluwaayam. léegi nag euh, malheureusement mbokk yi am nañ indiscipline bu nekk ci ñoom boo xam ne yu mel ni bu jotee kenn ku nekk di yëgle kenn ku nekk di wax te ku nekk li ngay wax yow sa xalaatu bopp rek nga ciy jiital doo ci bàyyi xel li nga xamante ni moo war a am ci ànd bi ñu war a ànd léegi loolu dañu gën a fragiliser di indiwaat ak ko suñu biir ak pàccaxoo suñu biir boo xam ne bu yàggee ni ñi dañ ñuy reetaan xam ne ñun nekk nekk nit yoo xam ne niñ bëgg a dundi na te discipliné wuñu loolu dong la parce que man bu ma amee information dina xool kii nekk ci commission bi ma jël numéro woo ko waxtaan ci ak moom jox leen ko même buñ ko jaarale woon sax du tax may jóg di génn naan non information bi kii na wax nañ lii def nañ lii ak yu mel noonu di di leen contredire ndax loolu buñ ko defee yàq lay gën a def ko defar ndax ñoom am nañ sañ-sañ jàngat information gis ne li gën mooy ñu bañ ko jàllale ndax ay mbir ak ay masaalix yoo xam dañ koy sàmmanteel voilà léegi nag euh, bu fekkee demee na noonu daal ala kulli xaal daal man rafetluwu ma doxalin bu mbokk yu bari am nekk ci réseaux sociaux yi kenn ku ne di wax di partage ay ojo partager ay vidéo kii nee na li kii nee na li ba ñenn dégg naa ñu ngi dog seen koor wax dëgg yàlla mën na ñàkk daal mën na ñàkk ndax yeneen ay xàjjalikoo ak yooyu rek lay jur te amul benn njariñ yàlla nañu yàlla dool defal tawfiq